ak firi son ya ci barke màggal sëriñ bi aw ñam la digle kuy dem na yóbbu aw ñam bernde ci màggal képp ku màggal bis bi di màggal màggal ku dëggal des na la màggal fonk ko moo war jàpp ko moo war ku ko deful war ki woote màggal bamba danoo moom amul ku dul moom nañ toppi ndigalam te fonk màggal fépp fu mbooloo daje di booloo nañ jéema booloo waxtaane màggal ñu jëm ci dëkk bi nga xam ne dëkkub cosaan la ngir andil leen nuyooy Sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa waaye tàllalaat leen loxo ci bokkoog lislaam gi nga xam ne dañoo bokk pas-pas bokk yéene bokk aw askan bokk am réew bokk aw tund te loolu su bokk yu duggee ci biir jataay bi dana feeñ mu ne nañ ko nemmikul barabi mag ñi ku tudd mag ñi jëm si Jolof lool la yàlla dogal ci Sénégal li ëpp ci réew mi di ay taali jàngo di ay këri diine taal boo fi seen mu tàkk mën nañ ne matt ga ko taal jolof gi la bàyyi ko loolu nag képp kuy dox ci innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum da nga wëlbatiku jëm si jolof te loolu mooy doxinu Sëriñ Tuubaa loolu la sëriñ Muntaxa doon na ci ay juróom moom la ko ay mata magam batale moom la fa yéene ànd ak ay rakkam mu ne ñu nag bu ngeen demee Jolof dëkk bu ngeen jëm bu mën a doon su ngeen fa àggee ka fa gën a jege sëñ Tuubaa mooy kilifa jotaay ba na ngeen ko jox kàddu gi moo tax bi ñu agsee sëriñ Modou Mbàkke si ne Jolof ku fa jëm ca am fa ab ambassadeur bu doon président réew moom jëm ci ambassade balay daal fii nag ambassadeur sëñ Touba bi fi ne mooy sëriñ Cheikh Dior lañ Mbàkke ne xam na ne ay at yu bare ngi nii sëriñ bi di liggéey lu liggéey bii ci bokk gi jiital sëriñ Modou Mbàkke si mu di ko doxal ay yu bare bare te lépp dara ba ak si ci bisu tey bii ñëw Jolof bëgg a seet si maam Samba Thiam mi nga xam ne moo doon jàngal maam Maaram bu ñu fa jógee jaar Sine dem ba bu ñu fa jógee dem Affe Jolof yendu fa daane ma li tax ñu bëgg jaar Mbàkke Jolof ci Masamba Caam mooy kóllëre gi nga xam ne amoon na ko ak maam maaram li tax ñu bëgg a jàll Sine itam ku ne xam ne diggante siin ak Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu itam kenn tudd sëriñ bi te tuddloo Affe ndax ci yaari waajuram yépp kenn ku ci nekk dafay ñibbisi ci affaire ñu mu am nag bokk yàgg goo xamante ne ma nga tàmbalee ca Assa Mbàkke Awa Ñang ma nga xamante ne mooy ñaareel wala ñetteelu doomu maamaaram ñu jox ko joxe ko fii mu am ci Ahmadou Mokhtar Ñang tafsir bu mag boobee nga xamante ne kenn ku ne xam na xam-xamam ak diggamu ak sëriñ bi kon mu mel ni Maam Mor doomu bàjjanu euh, tafsir Ahmadou Moxtaar Ñang moomu la ci bokk loolu di lu leer bi nga xamante ne wax na ne dañoo bëgg ñëw fii itam ma ne ko ab dëkk boo ci dem na ngay jaar ci bunt ba ndax ka nga xamante ne yàlla dogal na moo jiit dëkk ba nekk maire ba yàlla dogal na mu bokk ci famille boobu ndax tafsir maam tafsir baara xujje ko na xam ne ne mooy xeetu Seexul Xadim radiallahu taala anhu maam tafsir baara xujje moom nag moo jur maam ma sekk mi nga xamante ne moo jur way jur moom yi maam tafsir baara xuji moom moo jur sëñ Modou Faa jamañang Touba maam tafsir baara xuji moomu moo jur sëñ Góor Saane ñang kon buñ fi dee ñëw ci ak bokk kon duñ man loolu wàcc ci ki nga xamante ne moo fekk ko fi nekkal nekk ko xalifaam muy sunu kenn ku ne xam na diggante dëkk bi ak Cheikh Mamadou Fadil boo gisee itam ñu ñëw defee ko fii fi barab bi moom meer moo ki ko tàmm waaye ñu gane tafsir baara xuji lañu gane Ahmadou Mokhtar ñang lañu bi ñu ñëw moom moo tànn xam la ne nañ dem defe ko ci buntu barabu soxna Mati te ku ne xam na ne sëriñ Moodu léegi la génn ci bérébu maam Ousmane mi nga xamante ne moo jëkk denc soxna sii ba am ci ko ñu wax fat si yaakaar naan ne Cheikh Sidi An Malick benn doomu bàyyi la ko yàlla dénk moo maam Mati Ñaŋ mi ma ko jur bi nga xamante ne génn na àdduna ñu jox ko sëñ bu soobee doomi ndeyam mu am ci soxnaawu Bousso am ci sëñ Afiyé buso ànd ci sëñ Ibrahima Bousso soxna Matin Ñang moom nag moo tëdd fii tey moo tax monsieur le maire ne kon nañ fi ñëw defee ko fi ci buntu barabam ngeen siyaare ko xam ko kon loolu mooy li nga xamante ne moo sabab jotaay bi li waral itam ma di ci jël kàddu mooy bi nga xamante ne ñëw nañu itam ma ma ko waxee mu le maire wax ko waa dëkk bi dañ cee am taxawaay bu rafet bëgg ci lool sawar ci lool ñu leen xam ne itam sëriñ Cheikh Mamadou Mountakha li tax mu yebal fi délégation bi mooy bokk goo xamante ne xam na ne dëkk bi am nañ ko ak sëriñ bi tamit lu yàggaloo te lépp rafet muy dëgmal bis boo xamante ne ci la wax ne dafa bëgg ñu santale ko ci boromam wax ne képp koo xamante ne sama mbég sa mbég la war na ma ci santale sama borom loolu moo waral nag te kenn ku ne xam ne ne mbégum Sëriñ Tuubaa maanaam kenn jiituwu leen ci kenn ëppalewu leen ci mbég mi loolu moo waral karawaan bi ñëw fii ngir xamal leen ne la ñu ngi waajal bis boobu tey jii la séntu bu njëkk bi ñu ubbeesi ko fii loolu mooy li nga xamante ne mooy tànk yi nga xam ne moo leen tax a jóg biñ ko leen ko waxee itam am nañ ci tawata lool mag ñi li ko dale ci euh, Mamor Jama ak mag yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yépp nag ànd akook monsieur le maire ànd akook suñ sëñ Maam Baara ñu am ci taxawaay yu rafet rafet ba si fii kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen massaw ci coono yi waaye nag na ngeen xam ne fee ñu bàyyi ko seen kër waaye fi ñu ñëw itam suñu kër la di kër seen Mouhamadou Mountakha ku wax dëkk bi wax li ñu seq ci ak bokk Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu ñëw na fii ay yoon kenn ku ne xam na loolu ndax soxna Awa Bousso fii la nekkoon euh, yàgg fi lool gannaaw gi ba am fi sëriñ yaa fi gannaaw bi la fi Cheikhul Khadim ñëw am ci Cheikh Mamadou Fadil ak soxna Mariama Kunta ba waral soxna su baax si nga xam ne moo meññ soxna Awa tëdd fii ci barab bii loolu mooy li nga xamante ne mooy leen fi jeexit yi kenn ko xam na ne Cheikh Mamadou Fadil ko fi bari ay tànk la ñëw na fi bu budul benn budul ñaar budul ñett budul ñeent mépp mbokkum fi ma sa jóge reba na délégation ay doomam ñu ñëw teewu si waa afin itam ñoom seen bopp miin nañu lool ëttu Touba ngir bokk bi ak wëllëre gi nga xamante ni yàgg na ba tax na kenn ci ñoom ku ne mën na cee wax loo xamante ne dana doy sëkk ci ab xam-xam kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen xamal ne daal li ñu li li leen sëñ sëñ Mouhamadou Mountakha yónnee daal yëg ngeen ne yéen a ko moom te ngeen ko ak seen fukki loxo ak bokk rek nag ak dundal lislaam ak dundal bokk gi loolu rek moo waral karawaan bi di waajale si fi màggal bi ubbee si ko fii kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di barlu àq ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waxtasimo bi abdillahi jamian wala tafaraqo sadaqallahu alazim aydan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shilloo arxamakum walaw bi salaami kon bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wax bisimilah ci làmmiñ wu sell ci jëmm ju sell fa tabaarakallahu muy Serigne Ahmed Sy Niang di chef de village à Affé di leen tàttagal di leen dalal nee na ci biir commune doomam di sëtam di xaritam muy Serigne Cheikh ñaŋ di monsieur le maire Affé Jolof di jaarale cant gi ak ngërëm li waaye ak mbégte bi ci ki nga xam ne tey ci jolof ñëpp bëgg nañ ko ngir engagement am ci lépp loo xam ne diine la ci lépp loo xam ne ak bokk la mu wuutu fi sëriñ Touba ak njabootam muy Serigne Cheikh coro Mbacké nga xam ne gàcc ngaalaama fa tabaarakallaahu yal yàlla fay ko nee na mi ngi ciy jaarale ay cantam mu koy jottali sëriñ bi nga xam ne tafsir daam radiyallahu anhu daana wax naan doy say nawle doy na ndam kon boo doyle doyee say nawle doy say kilifa doy say sëriñ fa tabaarakallaahu fekkonte ne bàkku jaadu na bu la neexee bàkku muy sëriñ Modou Mbacke sëriñ bi nee na mi ngi leen di dalal ci seen dëkku bopp di leen wàcce ci seen xëttu bopp waaye di leen jox sees ci seen këru bopp ndax ku ne xam ne ne aafe mënuñoo génn seexul xaddim seexul xaddim mënu leen a génn te it njabootu Afe gépp soob na yàlla tey ñoom ñëpp fi lañ yendu ndax lan su fekkoonte ne réew ak réew am na indigré kon ñu ne Afe ñoom Touba mooy seen indigré muy xale yi ndax mooy seeni tool mu soob yàlla it nag Touba gépp xam loolu ci Afe kon sëriñ bi nee na imaam yi nga xam ne ñoo ngank jumaay aafe yi ak jàkkaay aafe yi nee nañ bés bi ñoom yëg nañ ne bés gën a ko rëy ndax ku toll di njabootu Sëriñ Tuubaa nga xam ne li mu liggéeyal yàlla liggéeyal ko yónnentu yàlla Muhammad ba ñu tuddee ko Xaadim Rasuul njabootum fu ñu jógee fekk si njabootam su fekkente ne mbégte jullit am na wala feetu jullit defe naa bii benn ëpp ko ci sëriñ bi daal sëñ bi nee na seen yoon wii ngeen def te ak bokk lal ko te sëñ bi tudd ko léegi innam la moom i noonu exwatan ba aaya ba jeex fa tabaarakallaahu lañ cee ñaan rek mooy yoon wi yëpp yàlla nay cant ak ngërëm yàlla na tabbi ci ngërëmal yàlla suñu borom subhaanahu wa taala sëriñ bi kontaan na bég na amut lu ëpp lii njabootam tey bañ xëyee ci suba ba ba fi nekk nii kenn génnul baas bi ku demit danga dem pour waajaat moom sa bopp pour delsi kontaan nañ bu baax bégg nañu lool di wax alaaji wàdd la ma waxoon naa ko wax sax moom fan na ko wax waaye alaaji say bopp nee nañ di aafe cant bu dee benn ñexel na la parce que lii bu amee alaaji yow la perte sa temps bàyyi sa liggéey foo toll fu ne yaa ngi dem Touba ak ñëw téléphoné ak ñëw di jox ko saa su nekk ngir lan ngir sagu Afé Jolof ngir teraanga Afé ngir xam ne ngir xam ne ngir xam ne ñi fiy ñëw seen tànk fu mu wàcc rek barke wàcc fa parce que rabbi anzalni munzalan mubarakan mu anta xayru munzil ba aaye ba jeex am na ñoo xam ne fu mu wàcc rek yàlla wàcc fa barkeem te ñuy ci bokk boroom xam-xam. ak saxaaru dugub ñoo yem dugub foo ko becc am lu fa des waaye boroom xam-xam fu mu wàcc bay fa ba bay fa leer te ñi ci lañ bokk kon alaaji say bokk ñu ngi lay gërëm parce que lii tey bu doonte lu ñu maye la yaa leen ko may bu doonte lu ñu jaay la njëg yaa ko jënd ba noppi yàlla yàlla fay la dolli la sutura yokk sa confiance bu baax macha allah. xol daal sedd na wax dëgg yàlla bëggoon nañ kàddu yu gudd waaye xol bu seddee rek wax dafay jafe xol bu tàngee aussi wax dafay jafe waaye lañ bëggoon wax ëpp na lii sëriñ bi daal soo delloo ak jàmm nga wax sëriñ bi ne ko sa bokki aafe di sa njaboot ñu ko bàyyi xel ñu ko sopp ñu koy ñaanal yàlla seesu xaadim rasul bi mu toog yàlla na ko toogee ay ati ati ati ati ati at te bu ci dara ñaaw kontaan nañ bu baax bég nañu yàlla na yàlla dolli sutura yokk xéewal yi defal leen yoonu jàmm ak sutura sëriñ bi loolu la waxoon ne nañ ko jot jottali ci ay kàddu xam naa sax appoon na ko waaye tabaarikallaa sol xaaliqiina sëriñ Cheikh yàlla na yàlla fay la ñoom de ñi la indi jolof xam nañ tax ñu indi la xeeboo kenn xeeboo soxna si kenn nu mën a mel da nga bàyyi sa lépp dem teew ci xewam te it sa wàjjur wa tafsir daam radiyallahu anhu nee na am na benn picc bu nekk ci àll bi matul kilo matul liibar waaye kooku xañ lu mu ñàkk ne yaa xañ ci àddina muy piccu sagal kon yow sagal nga ñëpp yàlla yàlla sagal na ci daara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baal ñàq baal nañ leen yàlla yàlla boole jéggal daara yi Sëriñ Amar Sor na ñu ngi lay teraanga joo xam ne ji joo xam ne ji yàlla jox na la ko mu ne yàlla jox na la ko ngir ngir nga joxal ko nga joxal ñu ko sëriñ Modou Mbacke mii sëriñ Modou Mbacke mii toog sëriñ Modou Mbacke si mii toog nga xam ne ñëpp wóolu nañ ko teraanga ji tey. mu ne teraanga ji. teg nañ ko ci loxo. teg nañ ko ci nga tegal ñu ko ci loxo sëriñ Modou nga teg ko ci loxo Serigne Modou Mbacke mii. te yàlla tax. si yàlla tax. sant nan la. mu ne sant nañ la. gërëm nan la. sëriñ bi nee gërëm la. ñaanal. sëriñ bi nee yàlla. yàlla yàlla nangu. ko ñaan yi. jox teraanga ji ki ko joxe. mu ne kii joxe teraanga ji. teraanga yin fi xendoo xéwloo it. traité yi fi yëndoo xéwloo. moom jox moo joxewoon jooju it teg ci lii. mu ne moo joxe ji it. kon nag. mu ne kon nag moom it yal na ko yàlla dolli man. yal na ko yàlla dolli man amin. yal na yàlla dolli suturaam. amin amin yal na yàlla guddal aw fanam. amin amin amin. yal na yàlla sàmm ko sàmm njabootam. wax amin amin. sàmm njaboot ak di jaay say diw. sallallahu alayhi wa sallam. alhamdulillahi rabbil ci màggal képp ku màggal bis bi di màggal màggal bu na la màggal fonk ko moo war jàpp ko moo war ku ko deful war ki woote màggal Bàmba danoo moom amul ku dul moom nañ toppi ndigalam te fonk màggal fépp fu mbooloo daje di booloo nañ jéema booloo waxtaane màggal